audu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim yi noo ngi leen di di leen siyaare noo ngi ci ñaar jataay ak juróom ci téereb leer ba noo ngi toll ci ñaan sëriñ bi jëmee ci jullit ñi am na ci bayit yu nekk ci jaalibatul maraqib yu muy wax ne sunu borom yàlla na nga jéggal jépp aji gëm yàlla góor ak jigéen jéggal goo xam ne da leen di saxalal wépp yiw sunu borom yàlla na nga jéggal bépp jullit góor ak jigéen njëggal koo xam ne dana leen musal ci tooñkat yi sunu boroom yàlla na nga jéggal jépp aji rafetal góor ak jigéen njëggal goo xam ne da leen di wammatal yiw yi waxfir li kulli muminin wa mumina maxfiratan li kulli xayrin mudmina waxfir li kulli muslimin wa muslima maxfiratan taasimuhum min zalama waxfir li kulli muxsinin wa muxsina maxfiratan lahum taquudul xasana yi yëpp day wane ne ku tedd ku rëy la ci mboolem jullit ñi xeetu yonante bi salallaahu alayhi wa sallam fu mu toll mu ngi leen di tudd di leen ñaanal aw yiw di ñaanit yàlla dàqal leen lépp lu leen mën a lor sëriñ Tuuba day koo xam ne du boot di kenn ñëpp la def mbokk dafay jëfandikoo aaya bi sunu borom wax ne ñi gëm yàlla ay mbokk lañ innamal muminuuna ixwa képp ku yar ay mbindam faw nga sopp ko ngir ni mu yaatale mbiram ak ni mu yéenee ñëpp lu baax doxas kenn du ŋàññi kenn lu rafet lu baax lay wax ci kilifa yi ko jiitu ci diine ci wàllu fiq mu ngi tënku ci ngirum imaam Malik waaye teewul saa su koy ñaanal dina ci boole yeneen borom ñeenti ngir yi yeneen borom muy tawasul buy tawasulit ci imaam Malik dina leen tuddaale kon loolu day wane ni mu setee ci ak parparloo ñàkk ànd ak nit ci gis-gisub diine du tax mukk mu jàppe ko am noonu ay mbokkum jullit rek la ko jàppe naka noonu it ñu baax ñi dina leen tudd ñoom ñëpp di leen ñaanal ak di ñaan yàlla ci seen barke buy laabire jullit ñëpp lay la koy boole du yam rek ci ay taalibeem ndax ni mu yéene li mu yéen ni mu yéene ay taalibeem ak mucc ni la ko yéene ku taalibeem lépp day gën a wane donn gi mu donn yonante bi sallallahu alayhi wa sallam taxawaay bi yonante bi sallallahu alayhi wa amoon moom Sëriñ Tuubaa taxawaay boobu rek la am ci xeet wi loola waral nu gis ñaanam yi mu jëm ci ñoom te noonu la ko daan jëfe ba muy dund ku ci mas a jaaxle ci wet gu mu mën a doon sa xel ci moom rek lay dem ngir mu fajal la sa jaaxle moo waral euh, fu mu mas a nekk nit ñaa ngay fay nit ñaa ngi fay fees dell ci këram dafa nangoo yàgg lool ngir rek bëgg koo gis ba seen ajo faju lu mu xam ci lu baax wax leen ñu jëfe ko loolu ab safaan mu di leen ko dawaloo lu mu am caalal jox leen moo tax Cheikh Sidiya Baba wax ne Serigne Touba xéewal la yàlla defal mbindeef yëpp kon noo ngi yam foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.